salaamaaleykum gars yi ñu leen di nuyu waa nuyu fii assemblée pour voter euh, euh, loi bi parce que je pense tey lay tey lay parce que règlement intérieur bi dafa ne ordre du jour euh, session extraordinaire bi bu jeexee rek dañuy tëj session extraordinaire bi donc on a ouvert une session extraordinaire mais malheureusement duñu am DOB malheureusement duñu am débat d'orientation budgétaire pour cadrer budget 2025 bi malheureusement duñu am DPG parce que gouvernement le premier ministre na ñëw Donc tout ça pour ça. Donc pourquoi avoir créé toute cette crise-là finalement pour déboucher sur ce texte-là qui est un texte bon à maintenir. À la limite, c'est juste pour dugalaat ci biir règlement intérieur bi les aspects liés au premier ministre. Donc euh, vraiment li ma mooy li ma wax ci tubaab li c'est un déni de responsabilité ndax on avait la responsabilité unique de faire un règlement intérieur complet bu nga xamante ne même ñun bu ñu jàllalewul yëpp dañ fi bàyyi benn document de référence pour législature bi di ñëw. pour que ñu gën a ñoŋal assemblée bi gën a ñoŋal liggéey assemblée bi surtout gën a dooleel parlementaire gën a assemblée nationale Sénégal surtout mu gën a émancipé wu. donc vraiment c'est encore une de nos on nous a encore fait au Sénégal une tempête dans un verre d'eau et qui au bout ne donnera rien je pense que ce texte la est largement incomplet et man à titre personnel je voterai contre ce texte-là puisque quand on est en face de l'histoire